la ma leen waxoon rek keroog bi ñu ma tegee fii premier conseil bi ma waxoon conseil dama ne leen démb sama yoon néew ci bu ma ko kenn laaj indiwuñ ma pour audit indiwuñ ñu pour régler mais dañ ñoo indi pour liggéey bi bisab tey bii jëm ci kanam lu ma weesoog yéen dana mel ni jant bi te loolu ci laa nekk. te defe naa ne maa ngi toog di déglu musuma daw ab question question bu ma nit wax danaa la ko bu ma nit laaj danaa la ko tontu parce que defuma lu may nëbb defuma te ragalu ma. donc loolu loolu euh, ma ñëw rek ci tontu ci Bass Diagne ci li mu wax parce que wax na ñetti mbir yu am solo mais bu ci nekk euh, pro mbir programme da nga koy évaluer dangay ngay seet fan la newoon lan lañ ci def fan la war a jëm su ko defee boo ci boo boo boo ko defee rek booy intervenir da nga xam doo am problème li mu wax dëgg la ci li mu ngi njëkkee ci ndaw yi mag ñi nekk ci commune bi. mais euh, bas da ngeen di dem historique man fii maa ngi fi fekk trente cinq personnes fekk naa leen ñu am quatre mois arriéré de salaire trente cinq ñeenti weer yoo xam ne fay ñu leen tey maa ngi ci deux ans te kenn ku ci nekk dugal naa la fonction publique maanaam pour nga préparer sa sa sa sa retraite te musoo am salaire bu retard donc da ngay seet li nga wax dëgg la mais da ngay seet fan laa ko fekk ak fan laa lan laa ci def ak fan laa ko jëmee. trente cinq laa fi fekk trente quatre mois arrière de salaire ma yóbbu leen deux ans yóbbu leen fonction publique c'est que assuré seen retraite se que que sécurité euh, euh, euh, ak EPRES yépp ma di leen ko cotiser defe naa ne loolu évolution am na avancement dafa dafa am na tuuti lu xew ci dëkk bi loo xam ne jàmbaar ngeen trop mais gone mënu koo xam bul fàtte ne indépendance ba bërki démb ci yéen jàng fii ab école nekk fi bëriwul nit ñu jàng bu dul ñu jàngee ci école sëñ Cheikh te it nag expérience moom da ngay jàng ba bay cadre a def ko wala nga am expérience def ko donc jur boo xoolee mag ñi nga xam ne ñoom laa fi teg ay officier état civil lañ doon ñaar ñaara fi nekk inspecteur euh, jàngalekat bu retraité ak inspecteur de police bu retraité parce que nag état civil dafa sensible dafa doy waar moo tax ma jël bopp teet yi nga xam ne chef service yi nga xam ne yaakaar naa ne yii dafa laaj responsabilité bu wér dafa laaj contrôle bu wér dafa laaj expérience ak enc ak sécurité ma jël ñu teg ko ci kanam xale yi mu jiite xale yi ñuy liggéey état civil bi fi ngay wax romb na ko ñun dañoo dañoo donn dañoo donn archives yi bul fàtte ne independance ba léegi ba daaw jéeg ba 2017 2018 sous préfecture moo yoroon moo nekkoon euh, centre de état civil 2018 lañ ko jox commune yi ku juddu li tàmbal ku juddu 2010 ba indépendance ba heure boobu mboolim kilifa yi ngi fi nekk seen kayitu juddu nekkul fii ñun bi bi ñëwee à 2016 la ñu informatisé maanaam état civil bi. fii ma toog de wax ak yow quatre-vingt-dix postes la ñu la ñu installé ci commune bi quatre-vingt-dix postes informatique poste de travail bo ñi ñi def informatique xam nañ loolu maanaam comment recruter def appel candidature ci xale yi ngay wax appel candidature laa def ci ci ñi nga xam ne dañoo def informatique trente personnes laa ci jël la ñu war leen a sélectionner pour que ñu siisir li nga xam ne moo nekk ci registres yi def ko ci def ko ci machine yi que fi ne pour cent ci am na euh, boo boo boo bu subaa da ngay dem ci état civil am na boo tiers bi informatisé nañ ko ba tey jii boo ñu boo demee da ngay boo ne boo joxee sa numéro euh, euh, et cetera rek dañuy tàppi machine bi tiire ko jox signé ko jox la nga dem doo fi def 10 minutes loolu nag dañ koo tàmbali. muy liggéey boo xam ne nii nag commune bi xalaat la ci am ak volonté mais bul fàtte ne au ministère de collectivité locale dafa am direction boo xam ne ne état civil la mu am directeur état civil boo xam ne dafa joxe ay sart ne nii ngeen di doxe ñun liñ man mooy lii 90 postes informatiques lañ def nga xam ne foo ci roof foo ci roof machine boo toogee mën a dugg ci réseau bi maanaam bu ñu pour informatiser commune bi informatiser état civil jël recruter nit ñi di teg leen fi maanaam ñuy dem ku jël na ku fekk ci mbir cinq yóbbu ko 2 ans def appel candidature ci ci informatique 30 personnes maanaam yaakaar naa ne yaa ngi ci yoonu employé te ku nekk lañ war a wax loolu sauf Abdoulahat à département de Mbacké parce que li ma li ma employé ci nit ci département bi kenn du ko def du ci commune Touba du ci sama privé secteur privé état civil bi def informaticien nañ ko ka def nañu appel candidature 30 informatique def nañ installé nañ informatique bi ñu ngi ciy liggéey gone gu tuuti nag kenn du ko def auto officier état civil muy signé acte boo xam ne nii bu ëllëgee mën nañ ko cee indil kaso éliminer ko yàq àddunaam booy jox responsabilité da nga koy jox ko ko matee l'homme qu'il faut la place qu'il faut ñun ñun dañuy dund Serigne Touba dañuy dund sëñ Touba gis nga sëñ Touba bi mu ñëwee ci àdduna dafa fekk diine di dox aada di dox culture di dox laalu ci dara touché wu ci dara dafa tër murit dafa karee murit dib taalibe ba àgg ci fii mu àgg kenn du ko joxoñ ne ko yaama tooñ parce que bi ngay taxawal si lii laal nga sama lii donc ñun loolu lañ def li yëf yi dañ koo donn dañ koo héritier rek état civil sous préfecture la nekkoon carnet yii lakk yi yàqu waaye diirab bi ñu fi nekkee ak tey benn ar benn këyit bu fi réer wala mu am fi problème amu fi te amélioré nañ ko amélioré boo xam ne nii parce que bi directeur état civil xoolee daf ne ñaar ñoo gën a liggéey ci Sénégal Mbuur ak Touba te bi mu koy wax am na fu mu ko teg kay ñun bi ñu fiy ñëw xam nga ka xam nga bi ñu defee étit xam nga xam nga bi ñu defee may leen ñu may leen ñu waaye may leen ñu bu leen yàq réunion bi may leen ñu bi ñu defee état gis nga état civil bi ma ñëwee fii bi ma fi defee trois mois benn ka ñaari casier officier état civil laa fekk benn bi ñu ngi defee enquête ba jàppee ko Mboro benn bi ñu ngi ko jàppee Géejawaay ñu toog foofu di dóor ay casier ñu dem ba benn ambassade ci Sénégal bu reconnaître kayitu Touba amul bi ñu fi nekkee léegi lañu ñu am moodu moodu di toog ca itali yónnee ambassade bi renseignement ambassade bi yónnee envoyé fii benn numéro ne seetal leen ma ko à dix minutes quinze minutes que commune Touba répondre ambassade bi ne ko Cheikh Ndiaye la tudd mi ngi juddoo Daaru Xuddoos mi ngi mel nii mi ngi mel naa yónnee ko mu ñu libéré Modou Modou ba toog ca salle d'attente euh, immigration euh, européen ba fa nekk loolu loolu loolu bi ñu fi nekkee lañ ko def kon def nañ ci lu bare bare bare bare mu des nag sa poste de santé Daaru Karim implantation bi nga wax bul fàtte ne daaru karim nga dëkk war nga koo xam daaru karim sañ sëñ ma Masamba moo ko moom ñun nag ab dëkk sëñ Masamba nag képp kuy def daaru karim li nga def mooy liñ def xam naa ne bi ñuy puus pali ñu peer bi fekku la fi dañoo dem ba ci Daaru Karim ñu dem ba ca kalifa sëñ ma sëñ Moustapha mu boole ñu mu ne nañ ko def fii ñaari Daaru Karim moo am Daaru Karim sëñ sëñ fii fii waa kër waa kër sëñ Modou Fadi Khady nekk ak Daaru Karim kër sëñ ma Samba daaru ñoom ñu ne nañ ko def ci digg bi parce que ñu ñëw foofu mooy Daaru Karim population ba ma nga ca quarante mille habitants donc te fu am cent mille habitants war naa am poste de santé donc kenn ku ci nekk foofu dem la nga fay def da ngay dem diisoo ak borom kër ga bam ne la def ko fii d'accord ci ak ñoom nga door ko ndax la preuve mi ngi nii suñ ko defee ba noppi ñoom lañ koy delloo ñu woo njaboot ga fa nekk ak nit ñi ñu seet comité de santé bi seere ko loolu réalité Touba la am na loo xam ne nii ñaar li ci ëpp solo rek mooy médecin district ak commune bi nañ ci d'accord ak kilifa gi ñu xam ne fii lañ koy def parce que médecin district dafa am carte graphique de sanitaire moom lañ ci d'accord mooy conseil kilifa gi moom dëkk bi moom lañ ciy waxat li ci des commune bi moom ñaar yooyu boo waxtaanee ñoom ñu kee kii ne ko def ko fii baax na kii ndax population bi mate na ko sëriñ bi ne ko def ko fii commune bi foofu la koy def mais commune bi du mooy décider di choisir fu ko neex mu que la preuve ñoom ñooy joxe terrain yi kër gu kuñ ci dem mboolem post yi ñu fi tabax kuñ ci dem sëriñ ba lañ dem waxtaan ak ñoom mu waxtaan ak njaboot ga woo chef de village ba ñu wax ba tënk loolu médecin district bi xool ko xam ne ci réalité yi ci carte graphique sanitaire bi d'accord na adapté na ak texte bi ñu def loolu. loolu mooy li nga xam ne danaa la ko leeral ci loolu.